ñi ngi leen di siyaara bu baax te di leen balwaaq di leen nekkal ci bis yu mag yi nu weesu di koor gi tey di fukki fan ak ñaar ñu toog fii ci pencim Touba buntu ko sëriñ Bara te doom ju tedd ji wutu ko muy sëñ Abdou Aziz ñu farataaloon doon toog fii ci buntu barabu Cheikh Sa maase yi du xasida yi ak li murit baaxoo def muy naan kafe tey nag ngi fii ci pénc mi mbooloo mi fi toogal ñëpp ñu ngi nii mu ne suleena leen a lim di waxtaane koo xam ne muy sarafaal ak weeru koor waxtaane borom Tuuba ak weeru koor jàpp gaag fonk gaag yermane jaak ak ndimmal la ak ñeegal ma ngeerem ga yo yep ci weeru koor niko ko mag ñi farataal di ko ci fukki fan yu yi ak fukki fan yi ci digg bi ak fukki fan yu mujj yi ak yermande yalla ak taxel ak bor ab jaam waye Cheikh Fall sunu waji def ci jaloori ju ju mag ndax ci weer wi ci la yoonu murit sosu fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor ci la badar jeex ci la yoonu murit sosu yonent bi sallallahu alayhi wa ci la gën a àddina ci guddi altine muy weer wu màgg gën ci weer yi guddi gi ci gën te ñu tànn ko sëñ Tuubaa nit ñi umpale ko mu xam ko muy leelatu xadri te ñu jagleel ko soxna May di waajuru sëñ Mourou Mahfous moom Cheikh Awa Balla waaye fukki fan yeeg juróom-ñaar ci la Cheikh Rafaal gisee ak sëñ Tuubaa ginnaaw bu mu jaaree kër sëñ Maxtaar Sill Tayba sëñ Adama Gueye jëlee ko fa ak sëñ Makhtar Touré ba sëñ Adama Gueye moomee nga xay moo jëlee woon foofa ak sëñ Makhtar Touré indi ko Mbacke Kajoor moom Cheikh Rafal wane la koog sëriñ bi ci saayir ak baatin sëñ Adama Gueye moomee Cheikh yebal na fa nijaayam muy sëñ Ibra Ngoone Njaay mu jur sëñ Baara Njaay mu jur sëñ Cheikh Njaay ak sëñ Amdi Njaay ak sëñ Mbacke Njaay ak sëñ Maam Njaay mee alom nga mu waat ko ñetti at ngir ne da koy neexale ngir lim ko wanal sëñ Tuubaa ndax la woon sëñ Tuubaa amatoo payam ba may ñetti at yi matee Serafal ñëw fa ni ko nan dem kër ga ba njëg see sëñ Adama ni ko ki nga fi yabalan mu doon ma muritu ngir léegi ma la woon lim ma defal bu ma doon dem ci sëñ bi du ma def lu ni toll kon yàlla na ko barke topp moom sëñ Baara Ndiaye sëñ sëñ Ibra Ngoone Ndiaye barke topp na ko ca te sëñ Baara Ndiaye waajuram mu jigéen ak waajuru sëñ Mortala ak sëñ Alifal Mbawar ñoo bokk lépp ba tey njabootam ñu ngi fii ci Palil waaye di nuyu Cheikh Sidi Mokhtar Cheikh Sidi Mountakha mi xalifa général di murit taalibeem bu mag bii di sëñ Cheikh Jëmb Fall ñu ngi koy nuyu di ko siyaar tey wax ni ndogu yi mu jiite di ko togg ak mboolem ku yaakaar Cheikh ak mboolem kuy taalibeem Cheikh ak mboolem kuy sëtu Cheikh Fall yàlla yàgg te lañ ca fas lañ ca bëgg lañ ca namal ci julli yeeg taalibe yeeg réew nangu ko te boole ko te nu ñaan sëñ Tuubaa yàgg fi muy sëñ Muntaxa yàgg sëñ Cheikh Jëmb yàgg fi mboolem rakkam yi ak sët yi eh, di leen sant yéen ñi nga xam ne yéen a jël si kàddu yi di sëñ Sané soxna maam jaara sekk kon noo leen di gërëmt te di leen sant di sant borom kër gi nga xay fi moom la ñuy toog mu suñu Abdulaziz moom sëñ Basiru moom sëñ Baara waaye njëbbal ma fukki fan ak juróom-ñaar ci koor ci la Cheikh Rafal gisee ak sëñ Tuubaa damay jébbaloog nu ñuy jébbaloog na koy waajee ak nu ñu koy defee ndax mbooloo mi teew ko looloo ku ma wax ba ca ñaar fukki fan ya ba ca ñaar fukki fan ya di bisub dimas, bisub dimas bobu ca Mbàkke kajor di ñaar fukki fan ci wéru koor ca gi gis Bàmba fekk na fa ñeen fukki mag yu manki ben mu dik ñeen fukki waye lam wax la kenn waxul fofé li ci ëpp xam-xama leen fi li ci am ëpp doon kaang mbaa fóore mbaa lu waay laaj ci masala nga wax ko looloo leen yóbbu sëñ Ibrahima Sarr Ndiaye te sëñ Tuubaa yónni ko yónneen boobu siiw te muy gàgganti ko ci lawal ma foos te mag ña gànt woon ci yónneen ba lañ noon buñ demee dañ jëli bind moom mi nangu far mu jële gu bën bind mi dem ca lawal mahfuus di a gàgganti ko kon yónnee nu sëñ taa bokk te keneen yónnee nu keneen sëñ Adama daa dugg xalwa ci mbaabu mook rakkam wala magam sëñ ma baabu sunu borom feeñu ko ni ko wàcc naa àddina mu ne kon bu xëyee seeti suñu borom fu mu ko mën a gisee dina ko waaye ko muy garde lenn wala mu soxna wala doom wala alal te gisul suñu borom mi nga xëy moom la doon teg laaj. doon ku maandu moom Don Adama gi doon ku yegg ci yàlla doon waliyu kaamil doon borom basira Don borom wilaya su suñu borom daan wax ni Moussa tolloon ci bu yàlla wax mu di ko sëñ ma Gueye dégg toll woon na foofu bu yàlla daan wax da koy dégg bu suñ toadee diyaale ak yàlla da koy dégg malayka yi bu ñuy waxtaan wala jibril di waxtaan suñu borom mu di ko yebal ci maison sëñ ma Gueye da koy dégg bi ko loolu jaaxalee walla boog mu def li ñuy def lakk ci kanam bindee fi ni daa wopp wala naar damaa jot kilifa ga mu ko doon waxtaan la muy sëñ Modou Maram Kan mi jëkk a jiblu ci Cheikh dëkk siin laykan siin siin gaja mooy siin laykan rek ci kajoor ni ko waxal ma ci yow mi nga xam ne dañ nga riir mu seet ko ni ko fii nu toog ci siin ak mbaabu sorewut waaye sunu borom xamal ni ma ne sa nopp yi daa tolloog waxukaayam mi buy wax ak lu muy nal ak lu muy naal di nga ko dégg te waxi yalla ku du Moussa mi ko jagleel attanoo ko am mag mu ci toll ni ko li tax dégg ge wañi ko moy da ngay dem tux mang moma xamna ko way da ko tudd mang moomu ne ko mu marab mu ne ko kan mu ne ko dang koy wax mu tux ndax dégg ge wañi ko biñ ko waxe sa ma gi joxal len ni lu wax ñu ne ah dañ da nga wara ndax sa wañi nopi de dégg gi wàññiku mu ne ko nag àdduna moom lu jaral luma jaral def bakar ngir bañ a wax yalla bëgg a gudd fan jaralu ma ko bu day raya dina ma def bakar bu ma ngir bu ala jotté ma ragal a dee àdduna jaralu ma ko àllaaxira jaralu ma ko kon na dee motax ñun fukat ak ben la dundu sëñ Ibrahima Sall Njaañ dugg xalwatu sunu borom ni ko sama leer wàcc na àddina sëñ Maxtaar Touré dugg xalwatu sunu borom ni ko saab takk ndeer ñëw na àddina mu ne nan seeti jëmm ji jëmm du tàggoog takk ndeer du tàggoog leeram ku leen gis leen ñoom ñett ñu daal di daal fekk sëriñ bi deqale fi sëñ Mor Sali ci Kajoor la ba tey ba ñëwee ñu fekk sëñ taa ngàbb ab gopp képp kurus gi ci baaraam yi benn loxo mu ngàbb ci jukki di bay mag ñëw yéew ko ni ko yow de lan doon seet mu ni ci nan toog jublu penku kenn ku ne wax la nga xibaar ba nga gis mu ne lu seen pexe nu dama bëggoon nga bàyyi sa nu bay ko yow te yow nga toog sëñ bi ni leen déedéet sama ndigalu kilifa la te loolay xañab xarit na la matab xarit te baay bu diglee kenn mënu ko caa wóotu ndax baay ku du yàlla doyantu mënoo koo wóotu ci doom ndawee bu dégg ndigalul baayam te saa baayam ma ko digal waaye dem leen tàggu ko bu ne waaw ngeen ñëw bañ dee suñ moon sëliñ leen déedéet dama koo sas daal di sas su ngeen jëlee seeni bay aw sasam lu leen fu leen leen ak jeeg moom lu lu mu leen defal yéen a xam ñu dem wax loolu ñu daal tobbi ñetti ñeenti sas yi sëñ Makhtar Touré sëñ Yaarama Guèye sëñ Ibrahima Sarr Njaañ Ahmadou Khadim ñu bay sas yi bayaale ko sëñ bi toog loolu la sëñ Mourou Moussa seqoon ak sëñ Fallou ba sëñ Fallou bay aw sasam bay sasu sëñ Mourou Moussa moo tax waaño walafalkat ba ni fallu doo xawaare def sa mag ji ab seex bay sa ba mu jeex bay sa ba mu jeex fallu doo xawaare am ci mag ñi ñu sant Mbàkke ni ko gone sax di day def lépp man yorab gopp yor jukki yor kurus loolu jëfi gone gone mënu ko mënu ko man duma gone ku ma mag amul ci ndax ajabari qabla al khalqi sab ila alf sant bil akhi jurum ñaar fi juni at yalla mbaru asma lal tay ñu su ñu ak awa ma jaamu yalla ba yalla man may mom soow ak sukkar ak ndox bok naan boo bok tour man duma ma gune dama fekk keur seigne modou seli sel di geej keur mam jaara sel di geej muy geej gu saf sap bari ndox lol te ku ci naan doto mar doto fatu mu ni mawul ayati ma wacc ci yéen way ma mag mag ni seigne wax lolou ndax allah ma ni maa kaana xablal xalqi man kaana li bi karima telxi waaw du aadama abul basar ba ko yàlla itam fekke naa loolu waaw inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabiyyi ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima bi yàlla bindee jaam ñëpp jóor leen ci benn barab di leen laaj lu mu leen gën a xam ne alastu rabbukum ndax du ma seen boroom ñi tax yonent bi ne bàllaa ca laa bokk fekke naa loola waaye ba mu bay ma koy laata wax wuute naa ko ndax néew ma fa woon ñu ko foo neen mu ne yéen ci yàlla laa doon wattu ñu ko ci nan la mun ne salli wa sallim man ala man xat ajaa baabil balaa yow ma alastu awala xam la sawee takkalu mi fekkuma fa moo tax bayit woowu moo wecc ñeen fukki salaatu fatiha ak benn bayit woowu moo wecc ñeen fukki ina laawoon waaye ki salaatu ala nabi euh, illa wal malaikatu salawna ala nabiyyi ya wa sallimu wa taslima bayit woowu moom ak ñooñu ñeen fukki yoon ak benn ngay wax ci ñoom ñaar door am benn bayit woowu ba mu ca génne la ni dañ maa wattuloo géej gi wax afaaliya sirin musuuna laaw ubban wa laa ilaha illallah ak afaaliya sirin musuuna laaw bi siri laa ilaha lam yoon in maa baax ana laaw fanan wa laa ilaha saalika falulaay ni ma laaw rabbi wala ilaha illa rafaqani ilal jinaani laaw ca bis bi bikka wala ilaha illa laa hasbi allahu laa ilaha illa alim tawakkaltu wa rabbu arsi asimi daani laa ilaha illa seydina muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi ba mu ne allah ku bar daa jóg taxaw ni foofa laa neen ne yàlla ni ma wool gaa ñëpp mu ñëw mànd leen ci géeji leer yi yajjadu ni ina malikil muxtadir kullu waliyu lil jinaani yabtadir ba ñëwee ñëpp maa def réception ba maa doon séddale maa joxe kaas yi moom sëñ Tuubaa Cheikh Fall daal di ñëw sukk ca Mbàkke Kajoor ci giir Bamba bisu dimanche ñaar fukki fan ci weeru koor wi ni ko dama laa bëgg a jébbal saa bopp àddina ak alaxira bàyyi naa yàlla mi ma bind lu naqari dégg ci borom téere yi ahlu kitaab bàyyi naa yonent bi tax ñu bind ma lu naqari dégg ci ahlu kitaab bàyyi naa saa bopp bàyyi naa saay bokk bàyyi naa àddina li ci biir bëgguma bëgguma bëgguma àjjana ragaluma sawara da sap saf sàpp ci rasulaay ma bëgg saf sàpp ci yow te loolu yow yittiwoowuma ko kur yow bëgguma ko kur yow bëgguma koo gis ni nga jaxasoo ak yàlla ak rasulullaay ba soow ak suukar ak ndox bokk naan baa bokk tuur loolaa bëgg a jaxasoo yow noonu feeg may dund tey nooyi mbaama jógi adduna di wane ginnaaw sama ñaq yi yow laa koy liggéey la adduna ak alaxira jébbal naa la sama loolu lépp yat laa ci téye waaw yett laa ci téye sëñ ko yan yat mun ko fit wi ngor gi jom ji mun ko lu tax mun ko fit jom ji laa lay liggéeyale ngor gi laa koy yeggalee waaye fit bi laa koy sàmmee kenn du ko ruur moo war ca njaarim moom Cheikh Rafal mu génn aw yat mbaxana aw dal neefaree nag ñu ne ko loolu si mun ko nuyu sëñ taak mbaxana ma dóor ba nga néef ne nawi ku sol mbaxana ma dóor ku ñu ñëwaale ay dàll ci biiram ma dóor ku ko lox joxaloo ko sukkóor moo ma dóor daal ni sëñ Bàmba borom la du morom àdduna ji lu nekk ak alaaxir gën jëm sëñ yàlla mi bind jaam ñi ak yonent bi tax ñu bind jaam ñi amuñu ñaar sëñ Tuubaa amuñu ko ñaar maa ngoog sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ni ko su ma xaman ku man loolu doo ma mun ko tànk bi yàlla laa topp ba mu suuf ci si jëm boo ko génnee ma topp ci bi ku di yàlla amu ci moom sëñ bi ne ko ba ma ñëwoon ci àdduna ñu ne ma armeel bee rasulaay ci tëdd wala fii la daan jaar gisuma armeel beeg tànk bi asamaan si ko daal tiim suuf si ci la daan jaar ni ma ko bëggee dinaa ko ni yegg ci yàlla mu ne ko kon jeex man su ma ñëwoon ñu ne sëñ Bamba jaar ci mbedd mi jàll ma topp ca mbedd ma di jala lay ni ma ko bëggee dinaa ko yegg ci yàlla wax ma fu may jaar rek mun ku yegg ci yàlla am ngërëmal yàlla ma mara laak sa borom jubale laak moom jubale laak say bokk jox la say morom jox la lu say bokk amul amul mënuñu ko mara laak ku sa borom loo yàlla def ko yettat laa la koy jaayee mun ko yan yettat mun ko at mu jëkk mi dooma laaj lekk dooma laaj naan dooma ne fu may tëdd dooma ne fu may tëdd fu may lekk amee lu ma lëm néeg luy toll ak njarweñ kawaruk fas amee lu ma la ko cedd waaw Cheikh Fall Cheikh Fall ne ko jaral la ma ko Cheikh Fall liggéey ko ci ñetti weer yu manqué juróom benn weer mbaa boog ñetti weer yu manqué ñeenti weer ñetti waat waaw ñetti at yu manki ñent weer mu liggey ku ci loolu borom wo borom tuba waat ko ci bir Daaru Salaam fe borom gaaw a tëdd fekk tak nañ fa ne bo xane juroom ben koñ la kon bu dee morom ma 4 met ñu xadd ko juroom ñaar fukki dënd ak juroom ñaar dënd bu nekk 11 met ñu woy mbacké bobo mbaaxaan ma nga tak juroom ñaar ni mbacké ten jaajog mbaaxaan nga nga mbacké ñu ni bu kenn dem ginnaaw dafa ko jarali bokkam mu Cheikh bu kenn dem Cheikh Rafal wooyu leen ñëw dikk ni ko sooy bokk dañoo jaawale tuñ mooy dañoo mer maam Thierno dem ñu ne ko dunu ñëw yow dañ laa rus ngay mbokk réew mi di aada waaye ñëwunu ñu ñëw borom taani bërit julli ñaar ak sëlmal maam Thierno jàpp ca beekoñ sëñ ma numbe borom gaawaan sëñ affaire Cheikh Rafal Cheikh Sadiane sëñ Daaru Asan mag ñi sëñ bi ni illee yesudu kalimu tayibu wala amal saari yë saari na yër foo néeg bi naa falaan a ñoom tege ci kaw jën yi sëñ bi ni saa baara maam Cerno yéen a teg néeg bi wala maa ko teg maam Cerno ko yaanu boole néeg bi yóbbu ca kaw mu ni yóbbu leen suuf dootu leen laal suuf moo tax ñëpp a bëgg a mel ni Cerno te kenn bu te mel ni kenn ñako fekk won ñepp bëgg melni ñom ni te bëgg ñoo melni ni kenn cheikh fall dem rewtu ñaar fukki reeni jële mbaan ak juroom ñett tak ci ñax ci bopp ba sëñ di bind di jang mu tok ci kipar ga dib nit wa mbacke genn di ko séentu naa dafa mudu mbacke bi di lamp lamp lu nek moy lamp bi seigne fallu tuddu muy soror bi borom ak bu cere yit koko, nyutok ñu tok Cheikh Fall na ci gajj bi borom gawan tok ci akku yir gi ñu mujjel ak gi Cheikh Fall mujj gor ci Daaru Salaam yàgguñu ko dijji sëñ gawan tok gaynde gi ñew boof ci wetam di mar Cheikh Fall di beurit sekk ci suufu yalla ci su fepp suufu ne mu def ko keur tus bëgg fàdd gaynde gi ardu baye ko ca kaw niko tàmbali wut yàlla tàmbali loral yàlla munta ne ñoo ñaari jaam lañu maa leen boole ci ker gi ku lor morom mi maa ko far serafal yebbi suuf si ñu defar néeg bi borom tuwaa nekk ci biir bayti bi ba yàgg mu génn du gàtt ci biir mag ñi wër ko muni ni Ibra Fall mu ni Mbacke Cheikh Fall du gouram waye du ram sunu beuti wom yi da defi du doxe ni mbeuti di doxe mbaa jaan ñëw ba ni sa mucc sëñ Tuubaa muni ko jugal tok ci lal bi muni ko ñime wumuko muni ko xana woyo ndigal musuma dégg sa déet te yang koy bëgg def Cheikh Fall taxaw ci digg lal bi tok ci digg lal bi mag muni cey man ak Fall mi Ya tax may asamaan ñepp di suuf ya tax may gaynde ñepp di mbotee xar yaay tax may ñamala gëléem gaay di ay bay sa kawal gu ñul ba fi nga toll musuma dégg sa déedéet musuma dégg lo tële yalla gërëm na la rasulallah gërëm na nañ ko sa loxo ko jibril tek na ko sa moo tax mu ne bi jaay jibril la sijib siwaal yi wa balaxali mablaxi rijaal yi rijaal ja mooy Cheikh Rafal ku gëm xayrun ku gëmut saran daal ko may naa la yoon wi lu waay mën a doxe te loolu ci li ngay doxe dara ak yegg ci yàllaam ak talib gum gu nangu dana des motax tax sëñ Abdou Karim Mbàkke moom sëñ Fallu yalla fi yàgg ak magama magam rakam ak i bokkam wax ne ku ñu jiñ batin ba wilaya mba ab taalibe nga dem fekk fa mom fekk mu mel melokaanu Cheikh Rafal wala mu joxe ni Cheikh Rafal di joxe wala mu jëf jëf Cheikh Rafal dañ koy jey way mu amu ci dara yoon ku ci bëgg yegg ci yalla am la nga bëgg am lim bëgg ci yow da ngay melni Cheikh Rafal dara doo waaj dara gëm ak gëm ak wóoloog yaakaar ak doyloog wóokilu ak fàggu ak fàggu waaye sëñ bi laaj junni nga joxe ñaar téeméer li may wax daal làqar ci wut royo Cheikh Rafal Cheikh Rafal yi daay fàggu fàggu te it jox suñ tuwaa am yelwaan lu mu jël luñ ko jox suñ tuwaa moo ko ñàkk wala taalibeem ñàkk ko mu jox ko xool ko bàyyi koor gi bi mu teroo waaw fenn fu ne la booli nawar yi dugg boo beree sas togg ba ne du ma ci lekkit la nga togg li Baay Faal togg ko gën a dagan ndax ñoom seen xol da cee sedd guy te kenn du ko ñam xorom ndax dañ ñu Sëñ Tuubaa kenn du joxu des kenn du jox sa kilifa aw des ba duñ ko ñam xorom du duñ ko mus togg ba noppi aw ñam gëlëm yu yu sëñ am di faal yi nag yeeg xar yi kenn xamul ñaata la sëb kër sëñ Cheikh Jëmb kër sëñ sëñ Ali Fall Mbawar sëñ atti sëñ Tuubaa yi atti Cheikh yi bokk lenn du la defa ñor te kenn du ko ñam togg lu toll ni ay gëléem ak xar ak ganaar di fa tëddiñee loolu xol bu tàlli ak yéen ak mokk moo ko waral ku fay ku fay ñiy woor di nga fay ñu añal ñi woor soo bañee ñu fay leen ba tànga togg sa ceeb wala sa sa yaari ginaar ba lekk ko ñu fab ci li nga yor jox leen ba noppi doo ñam ca lañ doon saaf ndax iñaana la cay tànga lekk nga bañ caa lekk tët ku ca lekk keneen sag ràgg deñ lii Baay Faal yi togg di yóbbu ku ci lekk doo jaaxle àddina doo jaaxle alaxira ndax togguñu ko ci neen pas-pas lañ ko toggee ak yéen ak bëgg ak wóolu ak yaakaar ak doyloo ku ci lekk mucc ku genn ba doo ci lekk foo jaar tubaab bi digal la loolu looy def mooy da nga tension mbaa estomac mbaa nga jabet mbaa lu ne dal la nag te disu la faj yàlla nañ fi yàgg nu yàgg fi waaw Cheikh Fall noonu la jébuloo ak yéen ca bii yées wax ci tele waaw ndax ne bi muy julli moo dàq julli jullikat yi waaw kaamil ñaari rakka moom Cheikh Rafal dina ko daan def alxuraan ni mu ko jàng kenn jàngewu ko ni waaw Baye Mor Ndiaye tomb del ne ne Cheikh mooy kafatama keef gi kaang la faa gi fóore taa tomb gi tëf alxuraan mi musta mooy yàlla daal ni looloo jafe musuma moo yàlla te muy dëgg looloo jafe Baay Faal yaa ngi nii ku fi bàyyi yàlla bala fi Sëñ Tuubaa bala fi Rasulaay bala fi ku leen jàpp noo mën a mel ak foo ko noo mën a mel ñu bàyyi la mbaayaale la ngir Baay Faal salaamaaleykum wa rahmatulah jërë ngeen jëf